mbokk internautes di ziar naa leen mbaa yéen a ngi am jàmm tey ma indil leen benn histoire boo xam ne histoire bi moom mi ngi doog a ñëw émission nettali maanaam genre histoire bu ni mel lii benn xale bu jigéen la xale bu jigéen bi nee na moom yàlla dafa def mu daal di marié mais nee bi mu marié en 2020 ci la taawloo ki nga xam ne moo di moo jëkkëram bi ci la ñu amee seen première doom nee na nag donte deux mille vingt ñëpp xam nañ ne mi ngi tombé woon ak année coronavirus mais nee na yàlla dimbali woon na ko mu respecté li nga xam ne moo di ay visitam demit yàlla dimbali ko à chaque fois bu demee dañ naan ko ëmb bi mi ngi normal amul benn problème maanaam daal respecté na ëmb bi dem na ay visitam toppatoo na lépp bépp garab buñ ko bindal aussi respecté na ko mais nee na ba yàlla dimbali ko mu war a am doom nee na bi am doom mi ngi amee doom par césarienne nee na nag bi mu amee doom par césarienne ñu daal di koy césarienne daal mu am doom ci jàmm ak salaam nee na ñu téye ko hôpital ba ba yàlla def ñu war ko mën a libéré nee biñ ko waree mën a libéré nag ñu bàyyi ko mu ñibbi nee na nag mu nekk ci daal xew-xewam ba lépp passé ba lépp nekk ci jàmm nee na mu continuer di nàmpal doomam nampal doomam ba yàlla def xale bi am deux ans nee bi xale bi amee deux ans ci la jékki-jékkee mu daal di sentir ay douleur abdominale nee na nag bi mu sentiree ay douleur abdominale nee na mu daal di jàpp ne xëy na luy jàll rek xëy na comme dafa jóge ci césarienne moo waral parfois muy am xeetu douleur yooyu mais nee na douleur yi di persister di continuer di continuer ba yàlla def mu commencé di génn ay perte blanche yoo xam ne dafa dem ba changer couleur daal di def couleur bu jaune nee nag bi nga xamee ne nag mi ngi changé couleur perte blanche di changé couleur di def ay couleur yu jaune nee na ba pare nag exagéré di génn vraiment tout le temps di génn di génn nee na ci la demee daa di seeti benn euh, sage-femme bu nekkoon ci hôpital bi nga xam ne fa la amee woon doom nee na bi mu demee sage-femme bi xoolal ko daan ne ko lii de genre infection la nee na bi mu ko xoolalee ne ko infection la ba pare daa di koy jox ay garab mu naan nee na bi mu ko joxee garab yi mu naan nee na affaire yi nag wax dëgg fa yàlla naan na garab yi ba mu jeex mais ba léegi rek mi ngi continuer di génne ay perte blanche ba pare tamit lii di euh, douleur abdominale yi di continuer di ko gën a sonal. nee na nag ci la ko sage bi waxee comme nag ba léegi douleur yi bàyyiwuñ la bàyyil ñu defal la prélèvement vaginal. comme ça nga dem xool lan moo dal nga def ay analyse ba xam lii infection la rek wala dafa am beneen feebar bu lay yoot ma ne ko ca cey neena ci noonu bi mu ko defaree li nga xam ne moo di prélèvement vaginal daal di ko koy jox yabal ko ci beneen hôpital bu jege woon foofu ñu dëkk mu dem foofu pour ñu xoolal defal ko analyse bi neena biñ ko defalee analyse bi nag ñu daal di koy xamal ne jour bi résultat yi ware génn mu dem jëli ko ñu ne ko vaginose bactérienne moo la dal ñu biñ ko nee vaginose bactérienne moo la dal léegi nag nee na ñu daal di koy bindal ay ordonnance yoo xam ne pour traiter feebar boobu di vaginose bactérienne te ku ne xam na ne vaginose bactérienne en général bu la dalee ngeen baal ma mais sa sa sa sa awra bi day day dégager benn odeur bu doy waar doy waar boo xam ne sa partenaire sax bu amul bu amul nu mu tuddati tuuti kóllëre yàlla mun na def mu daal la fay bàyyi mais nee na moom par contre nee nañ ko vaginose bactérienne moo la dal mais nag amul benn odeur boo xam ne sonal na ko moom daal lu dul perte balance jaunâtre yi nga xam ne mooy génn ci kanamam moo ko sonaloon. nee na nag ci lañ ko bindalee foofu tamit addinay ordonnance nee na mu jënd ordonnance yi ordonnance yi cher cher mu jënd ko nee ko jëndee. mu naan lépp lépp luñ ko ci war a defloo rek nee na mu def ko nee na nag bi mu ko defee ba pare nee na ba léegi rek tey la gën a mën a génne perte blanche yu jaune tey la gën a mën a am douleur abdominale. nee na nag bi nga xamee ne naan na garab bi def na lu ne nee nañ ko vaginose bactérienne moo la dal aussi mu naan garab yi nee na ba léegi affaire yi di persister nag nee na ci lañ ko yebalee benn clinique boo xam ne mi ngi ci côté yi ci Sénégal nee na mu ñëw bi mu ñëwee. noonu ñu daal di koy boole ki nga xam ne moo nekk ci clinique bi nee biñ ko boole kooku nee na kooku daal di koy jox ay comprimé moom tamit jox ko li nga xamante ne moo di ay piqûre mu jël ko mais nee na n'empêche que def na piqûre yi jël na piqûre yi jël na ordonnance yooyu tamit ci clinique boobu nga xam ne dañ ko cee yebal uniquement pour mu ñëw ñu fajal ko comme dañ ne ko vaginose bactérienne moo la dal mais nee na aussi en vain mu jël garab yi fay ci xaalis su bëree bëri mais nee na ba léegi daal tey la gën a mën a continuer di génne li nga xam ne moo di perte balance jaunâtre yi muy génne ak tamit douleur abdominale yu persiste di ko sonal tout le temps ne na ci noonu benn tantaam ne ko nag kaay ma boole la ak benn généraliste parce que nag sa affaire yi ñu ngi bëgg a dépassé depuis loolu yaa ngi traité wu xaalis bu ne dépensé nga ko ci mais ba léegi zéro nee na bi ko tantaam bi boole ak ki nga xam ne moo di généraliste bi nee généraliste bi continué na ak moom pendant trois mois de traitement mais nee na pendant trois mois de traitement yooyu ba léegi tamit gisu ci benn avancement maanaam muy fay xaalis dépensé na ci lu tolloog cinq cent mille pendant trois mois de traitement mais nee na ba léegi aussi dara changé wul ma ne ko ca cëy yàlla nee nag bi nga xamee ne dara changé wul ci la ko tàntaam bi nee nag comme léegi ba léegi dara changé wul daayil ma boole laak benn gynéco am na benn gynéco bu ma xam gynéco boobu su ma la boolee ak moom yàlla mun na def mu daal di lay xoolal ndax nag yow liñ la ne moo dal boobu ba léegi façon comprimé bu dul bu jinne façon piqûre bu dul bu jinne yaa ngi koy utiliser mais ba léegi tey la gën a waalo gën a aay kon nag bàyyil ma boole waat la ak beneen gynécologue nee na nag biñ ko booleeg gynécologue bi mu dem fekk gynécologue ba ca dëkk ba mu dëkk ndax gynécologue bi Dakar la nekkoon di liggéey mais nag dafa retraité daal di ñibbi dëkkam daal di fay ubbi moom tamit genre clinique am nee na nag bi mu demee daal di expliquer gynécologue bi ne ko wax ko li ma fi nettali yëpp affaire bi ni mu ko dalee bi mu nàmpalee doomam pendant deux ans ak ni ko affaire bi feeñoo ak ni mu ko ni mu nekkee koo xam ne dafa am accouchement par césarienne nee na mu jël analyse yi mu jot a defit ak feebar biñ ne ko moo ko dal muy vaginose bactérienne biñ ne moo ko dal nee na gynécologue bi ne ko loolu yëpp dëgg la mais nag man duma la commencer traitement te defaatoo yeneen analyse ba ma am la certitude que ne feebar yi ñu la bindal fii moo la dal wala dalu la ma ne ko cey professionnel foo ko day day xam day day day lu jaadu nee na gynécologue bi ne ay analyse nee na daal di koy bindal analyse yi lépp mu dem defiwaat ko nee na bi mu ko defi jee ba pare ba résultat yi génn nee na mu yóbbul ko gynécologue bi nee na bi xool ko daan ne ko yow dañ laa wax ne danga amee feebaru vaginose bactérienne nee na mu ne waaw nee na gynécologue bi ne ko amee feebar boobu résultat yi mujjee génn loolu génnu ci feebar vaginose bactérienne dalu la nee na mu ne ko te aussi infection bi nga xam ne moom la ñuy wax moo la dal ba tax ngay génne ay perte blanche yoo xam ne dafa jaune ak tamit sa sa douleur abdominale yi di persister yooyu yëpp du du question infection moo la ko teg en tout cas li la ko teg daal man gisuma ko mais daal liñ la limal fii ne yëpp moo la dal dalu la nee na nag wax dëgg fa yàlla bi ko gynécologue bi waxee loolu yëpp dalu la ndax résultat yaa ngi nii benn vaginose bactérienne dalu la benn tamit li nga xam ne moo di infection mola sonal ba tax na ngay dund lu metti lii ngay dund dalu la léegi nag comme dalu la il faut que nga dem xooli ay spécialiste yoo xam ne mën nañ la defal peut-être ay échographie xool lan moo xew mais daal feebar yooyu man gisuma ko ci yow mais nag wax dëgg fa yàlla mu jaaxle bi mu jaaxle ndax nag dañu ko waxoon feebar boobu di vaginose bactérienne mais kooku nee na ko dalu la ak lim ci jot a ci xaalis yépp te fekk du feebar boobu ba pare muy faju feebar boobu nee nag mu daal di jaaxle ci yàlla daal di dem toog këram daal di xalaat ne est-ce que du ay ngelawu seytaane moo ko dugg ba tax na feebar bi dal ko ginnaaw bi mu amee doom ba mu am deux ans nee na mu commencé di dem ci ay sëriñ sëriñ yi tamit di ko faj sëriñ yi di ko faj moom ñoom tamit naan ko mun nañ laa faj mais ba léegi encore résultat zéro chaque jour daal muy gën a am ay problème ak ay jafe-jafe ci biiram boobu di metti tout le temps ak li nga xam ne moo di perte blanche yi muy génnee nee na wax dëgg fa yàlla affaire yi dépassé ko jaaxle daal di koy dikkal nag nee ci la jubalee ci benn xaritam boo xam ne ab pharmacien la Euh, bi mu demee ci pharmacien bi mu expliqué ko ne ko presque un an mi ngi nii sama doom bi bi mu juddoo ba am deux ans la sentir yi xeetu métit mais un an mi ngi nii ma ci faju ñàkk naa ci plus de cinq cent mille def naa ay analyse deux fois mais gis nga yee dañ ne lii moo la dal mais gynécologue bi ma mujjee dem aussi nee na ma yooyu loolu dalu la nee na nag ci la ko pharmacien bi waxee léegi comme danga ne sa biir bi mooy metti en même temps ngay génne ay euh, perte blanche yu jaune léegi dinaa la bindal benn garab nga jënd ko léegi garab gi soo ko jëndee danga koy naan soo ko naanee bu la fajee baax na bu la fajul aussi nga ñëwaat ci man ma daal di lay booleeg benn spécialiste boo xam ne mi ngi à Dakar xëy na kooku moom spécialiste la bu xoolee dina xam lan moo causé euh, sa douleur abdominale yu metti ak xeetu perte balance ngay génne tout le temps tout le temps nee na nag yàlla def pharmacien boobu di xaritam bi daal di koy bindal garab bi daal di ko koy jox mu yóbbu nee bi yàlla dogalee mu daal di naan garab gi nee na trois jours après benn jour mu dugg ci toilette bi di tuur ndox nee na bi muy tuur ndox rek mu sentir mel ni kuy matu mel ni daal kuy wasin ci ni mu jonkanee noonu di tuur ndox nee na mu sentir am luy génnee ci kanamam nee na nag bi muy am luy génnee ci kanamam nee na affaire bi xaw koo dégoûté mais nee na mu insister pompe pour affaire bi mën a génn mu xam lii di génn ci kanamam lan la mbokku internaute yi bi ndaw si nee na bi ma forcé ba loolu ma sentir di génn di génn ndekete yoo ndekete yoo complexe la gaa yi fàtte ci biiram bi jour bi nga xam ne ñu ngi ko doon defal césarienne pour mu am doom nee na bi mu ko gisee nag complexe bi dafa yàgg ci biiram ba daal di changer couleur nee na mu jël complexe bi bi mu génnee nee na wax dëgg fa yàlla mu tiit mu ne waa man lii génnee sama biir bi nii lii lan la nee na mu ne kon pendant trois ans lii mi ngi nekk ci sama biir bi di ma sonal te xaw ma lii lan la nee na ci la ko photo daal di jubali ci pharmacien bi nga xam ne moo ko jox benn affaire mu naan ko ba tax loolu génn nee na pharmacien bi daal di koy xool xool ba mu yàgg ne ko yow xanaa dañ laa defal césarienne bi ngay accoucher nee na mu ne pharmacien bi waaw nee na pharmacien bi ne ko xam naa gars yi moment biñ lay defal césarienne lañu fàtte complexe bi ci sa biir bi nee na nag wax dëgg fa yàlla affaire bi tiital ko tiital ko ndax nag imaginer complexe te c'est foto na complexe bi daal di koy envoyé mu nekk ngandimal maami complexe dafa dem sax ba changé maanaam buñ la waxul complexe la doo ko xam day mel ni benn tissi rek bu ne bu bu ñu teg noonu nee na nag imaginel te complexe bi sax tuutiwul dafa rëy ci photo bi nee nag imaginel pendant trois ans ndekete complexe mi ngi tëdd ci biiram bi nee na nag wax dëgg fa instant bii nii dafa tiit ndax xamul complexe bi fa mu tëddoon ci biiram bàyyi na fa góom boo xam ne mun na koo indil ay problème nee na ba tax na wax dëgg fa yàlla affaire bi da koo da koo traumatiser traumatiser bi mooy parfois day toog di xalaat ne fa complexe bi nekkoon est-ce que créé wul benn dégât ci biir biiram bi te xamaguñ ko bala mu koy xam mun na nekk trop tard wala déet nee nag wax dëgg fa yàlla traumatisé bi mu ko traumatisé tax na mu daal di koy indi émission nettali pour mu daal di koy partager ak mbokku internet yi ba pare aussi mu daal di ñaax jigéen ñi ñu bàyyi xel bu baax a baax jamono yi nga xam ne ñu ngi dem hôpital di fajoo ko ñëw pour xool ba xam bàyyiwuñu dara ci seen biir yi parfois nag nit ñi ne la erreur euh, médicale la mais nag wax dëgg fa yàlla liñ naan doomu aadama boo koy faj war nga prêter attention bu baax a baax bala maanaam boo xottee biiru doomu aadama bala nga ko tëjaat war ngaa vérifier bu baax a baax a baax ndax bépp matériel bi nga yoroon moment bi nga koy soigner ndax fàtte woo ko ci biir wala déet waaye xam nga ne ndaw si ay fanam ñoo des waaye nag complexe bu ngand boo xam ne bi mu ñu wonee photo bi mu des ci biiram bu tombe woon ak ay fanam jeex kenn waxatu ko nee na nag wax dëgg fi yàlla li ko tiital ba tax mu daal di koy partage émission nettali mooy à chaque fois xel mi day njortu ne est-ce que complexe bi bàyyiwul benn dégât ci biiram bi wala déet ba pare aussi mu ñaaxaale mbokk jigéenam yi nga xam ne dañuy parfois accoucher par césarienne ñu bàyyi xel bu baax gin après euh, après accouchement par césarienne bi ñuy seetlu seen bopp ndax amuñu ay douleur yu ndaw a ndaw yu leen di dal wala yenn bu ko defee ñu teel a dem xooli seen bopp xool ba xam fàttewuñu benn pince ci seen biir yi wala dara ndax moom moom dégg fa yàlla complexe lañ fa fàtte xam naa ne bu doon pince waxaat te moom heure bi kenn waxatu ko ay waxam ay ca mi ngi noonu di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal kanasatu la coréenne moo nekkoon ci caméra bi nuy bu baax a baax suñu DGC Latir nuy équipe bu technique bu Thiès Info yëpp di leen joxaat dig daje suba incha allah ci yeneen i nettali d'ici là bien